journalisme nag c'est un métier noble ouais. Euh, journalisme Sénégal dafa dem ba euh, tu te que euh, am na ñoo xamante ni booy wax ak ñoom sax ne leen journaliste nga dañ lay xaw a xeeb mhm. alors que c'est un métier noble te ña ngay ñay baax ña ngay baax ba tey ñay wax dëgg ña ngay wax dëgg ba tey Cheikh Yérim mhm. Seck nag bu fekkente ni noonee la mel dañ koy bàyyeeg moom xëy na jikkoom la mhm. waaye nag li ngeen wax depuis lors je pense que dafay tënk wax ji parce que force reste ah mais dañuy wax naan seule la lutte libère ñii ñoo ko daan wax de. <laughs> loolu nag fàtte xew fi seule la lutte libère gars dañ ko daan wax te bañ ko waxee itam. Mhm. Ah, gis nañu ne seen ah, leader bàyyi woon nañ ko mu génn. waaw bàyyi mais man je que loolu waroon nañ ko jéem a def parce que man loolu laa xalaatoon. parce que mhm. genre force reste à que la lutte libère yow Ngoné à prix lañ libéré Sonko. Hmm? à prix. moo yow déggoo Ngoné li la wax. nee na la benn mbokkam dafa gis ñoo fa nekkandoo woon i nuyu ko. non sànq dafa ne seule la lutte libère boobu noonu. ngeen defoon mais loolu ci yéen laa ko jàngee. ci ñoom Ndongo laa ko jàngee ci ñoom Ousmane Sarr laa ko jàngee. Ah, moo tax ma ne la à quel moo tax sànq ma koy wax Ndongo ma ne ko. Mhm. ndax fi ñu jëm nii dama la koy laajal ndax tiitoo leen ci mbir mi. Hmm. parce que bu ñu tëj téye Cheikh Yérim Seck téye Kader Bougane Gueye <laughs> Dany suba 8 h mu war a dem wuy ji mhm. xam naa ne de wax dëgg yàlla fu mu toll nañu def ab réunion boo xam ne dañu koy xool ngir xool ndax. trouble focus sur le 17 la gaañu def wóor na yàlla taluñu la. que ay mbele mois lay doon rek. parce que <laughs> Cheikh Yérim Seck moom dëdd. en fait vidéo boobu je pense que c'est devenu viral mooy émission bi mu defoon Sen TV mu ne moom dafa décidé xo teppeeku. waaw dafa décidé woon noppeeku mais fina noppi. Mhm. mais finalement dafay teppeeku donc des teppeeku de mois lay doon rek euh, le cas de Cheikh Yérim Seck parce que mënuma comprendre aussi un journaliste tu dois être digne mhm. parce que depuis lors amul lu Cheikh Yérim sekk euh, yëkkatiwul te ko ci ndodd Ousmane Sonko bu dul Cheikh Yérim Seck Madiambal lay doon lay doon bu dul Madiambal suñu maam ba nekk ca beneen chaîne ku jigéen ki lay doon c'est-à-dire nekk benn euh, troupe wala clique goo xamante ni maanaam benn mot d'ordre la ñu am la ñu am mooy yàqal Ousmane Sonko mhm. après nag nit nit nit kese nga li Mati Sarr ñaa wax du yow yaay fajar sa bopp justice dafa am ci réew mi boo amee lu la métti da ngay dem porter ji plainte euh, Ngoone Saliou am na benn journaliste boo xamante ni mm. euh, jamono yi wees sax amoon ngeen ay kàddu yu ngeen échangé yéen ñaar mm-hmm. euh, il m'a dit seulement euh, on se reverra on va se retrouver un jour mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. parce que d'accorduñu ci ay kàddu on était amis yàlla dogal d'accord atuñu ci ay kàddu tu sais ce qu'il on va se retrouver mm-hmm. ma ne ko quand mu ne ma d'ici deux ans ma ne ko comment mu ne ma parce que xam naa ne lii ngay xeex lii nga yaakaar ni mooy dëgg du dëgg mm-hmm. ils vont échouer ma ne ko yow loolu sa bëgg-bëgg la mu ne ma ils vont échouer te bu ñu échouer tu mu me rappeler mm-hmm. te bu boobaa la ñuy reñuy retrouver wu maanaam pour te dire que ma ñoom ñoo bëgg bokk bëgg-bëgg mhm. te bu may naan on va se retrouver néew ma on va se retrouver parce que dañoo war a retrouver wu de mhm. mais dafa bëgg ñii échec mhm. te échec gu ñii mooy échec gu Sénégal parce que ñii ñooy gouverner le Sénégal bu fekkente ni projet bi ñu jaay la Sénégal boobu ba tey ñu fal leen ñu nekk euh, ci teddu gouvernement bi moom la ñu échoué c'était Sénégal mooy ndërmeelu pour te dire que c'est des gens yoo xamante ne bëgguñu seen réew ñu seen réew bugguñu seen askan lenn lañuy ñaan mooy ñii échec bu ko defee ñu mën a soccu mën a ree ndax soccu nañ ba pare mhm. ñu mën a reetaan retrouver wu ak ñi nga xamante ni ñoom lañu jàpp ne ñooy seen ay ennemi wala mun leen a reetaan ngir ngir ñaawal leen mhm. donc je pense que nii rek la man yii laa bëgg maanaam réew dafay am yoon boo defee lu dul yoon amul buggaan lii la buggoon bu ko bëggee yi tamit moo def li tax ñu woo ko mhm. dañ koy woo dañ koy convoqué yoon def liggéeyam ñu entendre ko buñ ko waree bàyyi ñu bàyyi ko buñ ko waree tëj ñu tëj ko d'accord dara xew fi. dara xewul nii mm-hmm. da jàpp dara xewul. tout se passe mais 8h30 laay dem wuy ji ndax loolu yaakaaroon ne ay militant <laughs> sympathisant wala sax ñi mu bokkal ah, di liggéey ànd ak moom gunge ko. ñi mu jot bokkal di liggéey la ni ko Ousmane Sonko daan ah, defee ah, bu ñu ko wan. c'était kër góor gi kadeer bi ñu ko woowee kenn dafa nekkul ci ay collègue man moom dinaa dem suba parce que dama ko war a daay. mais kadeer. Kader. bañ ko convoqué est-ce que da nga gis kenn. Mhm. kuy liggéeyee Sen TV yaa ah, ma de gisuma ko. Mhm. sànq dama dégg Ngoné wax benn affaire yaakaaruma ko de. sànq dama dégg Ngoné nee na. c'est la lutte libère si ñu ñu la ko xamee. ko dégg mais Ngoné da ngay da ngay c'est la lutte libère da ngay contextualiser phrase boobu noonu. Mhm. contexte bi mooy lan. boo nekkee ci dëgg. sa diine sax dara sax da xeex. boo nekkee ci dëgg laa la wax nga nekk ci dëgg. Mhm. ñu nar la jaay doole faagaagal la. sa diine sax da laa sant nga riposté. Mhm. ñun dañoo nekkoon ci dëgg. Mhm. ñu tooñ ñu sosal ñu xaawe suñu sutura nan ñoo jaay doole faagaagal ñu ñu taxaw riposté. mais laalaa laa ki ñu woo. moom moo tooñ ki ñu woo moo yàq deru jàmbur ki mu woo moo xaste moo saagawaate. donc moom moo tooñ ñu teg ko ci yoon buñ ko tooñoon tey man mii ma dem dimbale comme ni ma doon defal Ousmane Sonko ñu taxaw riposté. Mhm. fii nag benn nit moo jóg di tooñ. ñu mhm. ci yoon. d'accord alors euh, dañuy dem euh, directement ci euh, li nga xam ne moom mooy beneen xibaar te gouvernement bi daan ci andi ay démenti Salma Ibrahima Fall di nga ñu ko liiral léegi waaye dañu gis tey journal bi nga xam ne moom mooy tribune yéenekaay xëtam ku njëkk googee mu daal di bind le pays te alerte sur mhm. un danger dans la fonction publique régime bi dañu ko soupçonné mu vouloir daal di daal wàññi salaire ñi nga xam ne ay agents de l'État lañu. Mhm. ñu gis nag ca ngoon mel na ne euh, euh, BIC muy bureau d'information et de communication euh, bu gouvernement bi def nañu ab communiqué wax ne rek gouvernement bi mi ngi démentir yooyu allégation yamuñu ca itam dañoo jàpp ne ay allégations yu infondées la sur une intention de baisse des salaires des agents de l'État waaye lañu ci gën a seetlu mooy dañuy dañoo mujjee def benn mise en garde daal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy wax yooyu la kàddu. bu fekkee mën ngaa ñëw rek ci communiqué bi ku ci nekk wax am solo la parce que nag gis nga boo nekkee ci benn réew boo xamante ni dafa am ñu bëri ñoo xamante ni lenn moo leen ñor mooy jaxase xel lëndëmal xel diffamer euh, joxe ay fausses informations il faudra Euh, euh, un gouvernement boo xamante ne day toog saa suñu àndee fausse information mu mhm. démentir ko te lii communication la boo xamante ne yaakaar naa ñun journalistes yi mhm. ngoone mhm. yàgg nañ toog ci plateau télévisé yi du ko wax parce que nag euh, boo amee benn peuple boo xamante ne am ñu ci ñeneen nekk ñoo xamante ne ils sont de ils sont pas de bonne foi il faut que ngay joyanti te ci démenti bi mais dañoo def démenti et mise en garde waaw donc loolu lu waaw ñu ngi artu à propos des allégations yi nga xamante ne ñoom dañoo jàpp nit teguñu ko fenn amul benn wéeruwaay ndax euh, nee nañu ci benn document boo xamante ne ñu ngi ko euh, publier woon le 27 septembre 2024 euh, parti bi di PIT moo ko publier woon ñu ngi ci doon wax que l'état du Sénégal jamono ji am na maanaam bëgg-bëgg ngir wàññi salaire salarié yi ak pension yi nga xamante ne ñenn ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci wàllum fonction publique dañ koy am. Mm-hmm. mu mel ni nag ngir dëggal kàddu yooyu nga xamante ni. PIT mu ngi ko doon wax dañoo sukkandiku ci déclaration bi nga xamante ni le président Bassirou Diomaye fay mu ngi ko doon wax ñeel rationalisation des dépenses euh, publique mhm. donc nee na comme dañuy rationaliser forcément euh, wàññi euh, salaire yi ci lañu jëm mhm. waaye it daal dinañuy jubal ci déclaration bi nga xamante ni le premier ministre Ousmane ko fësaloon na ko donc ñoom bu ñuy wax seen source loolu kese la ñu sukkandiku te mhm. maanaam seen analyse bopp la ba war a mën a tax ñuy joxe information bu ni mel si eh, démenti bi nga xamante ni jamono ji c'est signé le porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Ndiek Sarré euh, ñu ngi wax lu ni mel amul mhm. amuñu benn intention ngir wàññi salaire yi amuñu benn intention ngir wàññi wala retenir li nga xamante ni moo di pension wu ñii li nga xamante ni jamono ji dañuy liggéey ci wàllum fonction publique donc démenti la waaye mise en garde la pour dans l'avenir ñi nga xamante ni dañuy def yu ñu mel ñu bàyyi ci xel d'accord Babacar anoo mhm. gisee euh, yooyu li kàddu dana tiital euh, fonctionnaire yi ñi nga xam ne itam dañuy liggéey bu ñu xëyee gis xibaar boobee nga xam ne tur bi nee na daf ko jëlee euh, ci ab communiqué ngir fësal ne yooyu lee xaalis danañ ko dagg tey itam du fàttali nag léegi état bi dafa am li ñu koy waxee bib te ki ko jiite ñu ngi koy nuyu bu baax a baax muy Mame Gor Ngom moom nag moom mooy fësal lépp loo xam ne daal communication gouvernementale la dégg nañu kàddu yi nga xam ne daal dinañ koy fësal léegi ci communiqué boobule waaw donc man dama naan rek ñi waxoon loolu li ñuy wax c'est c'est gravissime c'est juste que ne mesuré wu ñu ampleur li ñuy wax parce que euh, ay borom yu njaboot borom yu famille ay père de famille. Mhm. di liggéey di fayeeku nga xëy ni leen gouvernement bi dafa euh, am mbébétu wàññi seen i salaire wàññi seen ay pension loolu mun na créer émeute ci dëkk. parce que mhm. mën na ñëw mobiliser duñ liggéey wala créer fi grève wala leneen. Mhm. alors que ne amul te je pense que ne tey euh, seen mbokk journalistes na lu mu waxoon grand théâtre. waaw te woon na désormais ku fay bindati wala di waxate na nga xam ni ngay bind na xam ni ngay wax. est-ce que nekkul dañ jàpp da doon nappe noonu rek. di leen tuutal na na mais dama naan à un à un moment donné dama naan responsabilité nit ki. bi dalaa war a may yow. boo mm. toogee boo war a jël sa xalima di bind. wala nga jël sa micro di wax nga xool li may nga xool ci de seet sa digganteeg sa borom.